wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh ayyuha al-ikhwa inna al-waqta lahu ahamiyatuhu fi hayati al-muslim li anna inqidaa thaniyatin aw aqalla minha la jarsun wa isaanun bi muddi waqtin laysa bil qalili min umrina al-muhaddada wallati laa yum wallati laa yumkinu irjaahu maa madaa minhu minhu wal waqtu lahu ahamiyatuhu fi hayati al-muslim wa li haadha falyajibu ala al-muslim an yakuna munazziman li hayatihi wa muntasiman fi hayatihi ولقد دبهنا على ذلك الشيخ القديم حين قال وأرقب الأشياء للأموات رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويحة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن خفلوا ولندع, ولندع أمامنا قوله وكن أخي ضابط الحواس في كل وقت حافز الأنفاس لأن كل نفس من رجل جوهرة نفيسة لم تنجلي يمكن أن يستني الكنس بها لا يتناهى خيره فانتبها أيها الإخوة almuslim lahu masuliyatu alxiyaam bi islaahi hadihi alxayaati dunia wal axira wa min huna fa yajibu alayhi an yatanabaha wa yaaya dawrahu fi hadihi alxayaat wa yaquuma bi mutallabatihi wa an yatasakkara daiman ma baada hadihi alxayaati dunia rabbana la tuzig quluubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahaab mbokk yi ginnaaw bi ñu santee suñu borom julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu siwaat rek ci bokk nafaraat ak bokk fàttalikuwaat ci li nga xam ne moom lañu ñu mooy suñu diine tañ war cee tañ war koo dund te war koo doxe mu doon loo xam ne lu ñu war lu mat a bàyyi xel la ñu ginnaaw njëkk loolu nag ñi ngi tàllal suñuy loxo moom ci suñu borom jëme ko jëmale ko suñu boroom bi nga xam ne mooy boroom kàttan mooy boroomuk man mooy borom sañ-sañ ba mu defal nu ba moom Mamadou taxaa mi nga xam ne moo fi toogal Sëriñ Touba yàlla jox ko kattan ak man gën ko fee yàggal musal ko ci bépp gàllankoor ak bépp ndog ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci lislaam mu def ko te def ko defin gu kawe njortam te ñu kook moom loolu mu defal ko képp koo xam ne lislaam la tax a jóg may la kattan may la wér may la man musal la ci ndog yeeg pakk yi ba li nga xam ne yéene nga ko def ci lislaam nga def ko ci definu kawe su njort ginnaaw loolu nag li nga xam ne moom la ñuy bokk di fàttalikuwaat tey jii bokk di ko nafaraat moo di loo xam ne lu am solo lu mat a bàyyi xel loola mooy waxtu wi nga xam ne moom la jullit am mu waxtu nag dafa doon loo xam ne suñ boroom moom ci boppam dañu ko jàngal nan lañ ko war a bàyyee xel jàngal nu itam nan lañ ci war a def nan lañ bari war a bàyyee xel waxtu mooy xam nañ ne jaamu yàlla yim nu sant yépp da ko wuutal waxtu kon loola moo ni tegtal ni kon war nañoo bàyyi xel lan mooy waxtu li nga xam ne li ñu gën a li gën a ñor itam mooy ñu xam ne dundu doomu aadama gépp ci waxtu la tege waxtu nag bu fekkee ne la koo jox te waxuñ la nu mu toll xamoo nu mu toll kon yaakaar naa war ngaa bàyyi xel waxtu woowee ba lépp loo cay def xam na nga koy defee lépp loo cay bàyyi nga war ko bàyyi nga xam na nga koy bàyyi loola nag mooy li nga xam ne kon moom la ñu war a waxtaane tey mooy du waxtu dafa doon loo xam ne lu am su lu am solo ci jul dundug jullit la ndax lépp lu benn benn seconde boo xam ne jóge na ci sa dund sax doon na loo xam ne lu kawe la loo xam ne ñàkk nga kaw te dootu leen si waat kon nag rawatina boo jeexalee bis ba mu bis ba jeex tàkk nga jeexal ko xam ne bis bii kat li ci jeex li ci dem tey jii dootu dellu si waat te itam loo ci defutoon ñàkk nga ko kon mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la nañ bàyyi xel waxtu loola nag li ko gën a liñ li li nga xam ne moom ñu ci gën a gën a so liñ ci liñ ci war a gën a def kon xam nañ ne waxtu nii la amee solo kon war nañoo nos suñu dund te buñ ko nosee itam ñu nosu ca biir nos boobee nga xam ne moom nañ ko nos mooy faw suñu dund war nañ ko organiser ndax suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ak man nga xam ne lu ne waroon na ko mën a def na mu ko bëggee ak na mu ko ko neexee teewul lépp da koo nos xam nañ ne doomu adama am na fu muy tàmbalee ba keroog muy àgg fi nga xam ne moom lay àgg. garab gi nga xam ne mooy sax itam xam nañ am na fu muy tàmbalee ba keroog muy àgg fi muy àgg tam bu ko neexoon mën naa xëy sëpp sëppeel doomu adama rek muy dox ni nga xam ne ni la bëgg mënoon naa sëppeel mën naa mënoon naa saxal itam garab mu xëy di meññ ni nga xam ne ni la war a meññee waaye defu ko lépp la ko wutal waxtu kon mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la loolu nag loolu nag moo tax ba jullit bu nekk war ngaa nos sa dund te boo ko nosee itam nga nosu ca biir nos boobee nga xam ne moom nga ko nos kon mu mel nos moom nosu dund moom munta ñàkk ci ab jullit bu nekk ndax suñu borom moo nu ko jàngal di kon man suñu boroom jàngal nag kon ku nekk ci ñun war ngaa jéem a nosu ci xam ne àdduna mu ne su koo doxal ci rek ni nga ni mu la neexee wala ni nga ko bëggee waaye da nga koy doxalee ci ni nga ko nosee da ko war a nos mu nosu ba yow tamit nga jéem a dox ci biir nos boobee ndax loolu mooy tax li xam ne moom nga bëgg a taxawee ci àdduna nga mën koo taxawee ni ni nga xam ni nga ko bëggee loolu nag moo tax ba Serigne tubaa xam gi nga xam ne moom la moom la ñu xam moom la xam àdduna ak ni mu nu ko bëggee jàngale ñu xamee ko noona ñun tam te doxee ci noona mu won nu ni nga xam ne ni la waxtu amee solo ak ni nga xam ne ñu ko war a bàyyee xel mu xamal ni ñu ne ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu dellu ci suñu ci seen borom day li nga xam ne moom dañ def am siiw moo di ne bu fekkoon ne yàlla delloo si waat na leen ci àdduna si doonte benn waxtu la wala lu ko gën a néew ngir rek ñu mën cee def lu baax ba bu ëllëgee bu ñu delluwaatee mu mën leen a jariñ loolu nag li ñu koy li ñuy li ñuy won ne waxtu lu am solo la moo di suñu borom niñ ko waxee woon bi mu nuy sant ñuy defal ko tënk ko ci weer tënk ko ci waxtu tënk ko ci dara da koo tënk rek ci jëf ji nga xam ne moom lañ ko jëfal di wax ne fa may yaman misxaala darratin xayran yara wa may yaman misxaala soro yi yara mu mel ni kon dund maanaam waxtu wala lu ko gën a néew wala seconde wala lu ko gën a néew mën nga caa def jëf joo xam ne jëf ju lay jariñ ci àdduna la di la jariñ ci àllaaxira kon mu mel ni kon loolu dafa doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la maanaam lu mu tuuti tuuti rek mën nga caa def ndax comme suñ borom tënk ko ci weer tënk tënku nu suñ jëf ci am jeexum at tënk ko itam ci jeexu jëf ji waaye da koo tënk rek ci jëf ji nga xam ne moom ngay jëf kon loolu mooy man mooy wane maanaam suñ borom nga xam ne sa jëf rek lay xool waaye xoolul waxtu wa nga ca wa nga ca def xoolul itam diirub diiru jëf jë na lan la nga ca def waaye li muy xool mooy jëf ji rek ni nga ko defee kon mu doon loo ko xam ne kon lu mat a bàyyi xel la lu mat a lu mat a sonne la loola nag tax na ba Sëriñ Tuubaa jàngal lu ba tey ne kii dafa war a doon koo xam ne dafay contrôler boppam waxtu wu nekk lépp loo xam ne jóge na ci moom mu xam nan la demee ak ak ak nan la jógee ci moom loolu mooy tax ba bu ëllëgee mu mën a jariñoo li nga xam ne mooy waxtu wi ko suñ boroom joxoon te am lu mu ko ci sadd mu war koo doxe loolu nag moo tax mu wax ne ba mu laajee ñi nga xam ne laajoon laajoon na leen nan ngeen di waajale ëllëg te am ñoo xam ne dañ ko wax dañoo dañoo jàpp ne buñ fanaanee duñ duñ duñu xëy wala buñ yeddoo jàpp nañ itam duñ fanaan mu ne leen déedéet mel na ni day seen waajtaay seen waajtaay des na seen waajtaay mooy kenn ku nekk na jàpp ne noo gi nga xam ne moom moo génn ci moom mën naa bañ a dellusiwaat kon loolu ngay loolu ngay waajale àdduna loolu nag li muy tekki mooy kon faw sa dund danga koy nos te jéem a nosu ci ni nga xam ne mooy nosin wa ndax suñ borom bi mu nu indee ci àdduna dañoo indi ngir ñaari yëf ñaari yëf yooyee nag mu su koo def ci nam la neexee faaw da mën a ndos sa dund ngir war ko mën a def ndax xam nañ ne suñ borom mi nga xam ne moo sañ lu nekk te man lu nekk bu ko neexoon julli yi nga xam ne moom la ñuy def ñu di ko ñu di ko ñu ñu yendoo ko waaye dafa wax ne na ngay julli waxtu sàngam waxtu sàngam doo koy def itam na ko defee nii kon mu mel ni kon nosal nañu waxtu yi nosal nañu itam jëf ji nan nan nañ koy defee kon ki nga xam ne moo nekk ci àdduna si te suñ borom indi nu fi te andi nu fi ngir ñaari yëf wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun huwa allati ansaakum min was ardi wastaamarakum fiha ñaari yëf yooyu la bi ci njëkk mooy adduna at li nga xam ne mooy li nga moom la bëgg ci ñoom ñu def bëgg ci ñun ñu def ko ngir wone won ko ne ko yaay suñ borom yaa sañ ci ñun yaa ñu yaa ñu sañ a digal yaa ñu sañ a tere yow rek lañ war a jëfal ba ca teguwaat mooy adduna si nga xam ne moom nga nekk itam ne waroo fee nekk rek ngir nekk ngir ngir nekk fi rek te amoo loo fi def waaye boo fi nekkee itam da war a doon koo xam ne da ngay dundal kaw suuf si dundal suuf nag mu ne su ko defee ci lu dut ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee mooy dangay ngay nekk ci kaw àdduna si waaye bépp jéego boo fi def bépp taxawaay boo fi def da nga cay bàyyi sa borom da nga cay bàyyi xel sa borom loola nag kon lu mat a bàyyi xel la lu mat di ba tax na jullit bu rek war ngaa xam ne koo xam ne dañ laa sant nga war a defar àdduna war a defar war a waajal alaxira te kenn ñu jox la ñu jox la waxtu woo xam ne xamu nu mu toll kon war ngaa xam ni nga xam ne moom ngay def ci waxtu yooyee ba jaarale ko fi nga ko war a jaarale ba nag bu ëllëg bu bu ëllëgee nga jë man cee jariñu ni nga ci war a jariñoo àdduna ji itam nga def fi loo xam ne ñëpp dañuy xam ne mas nga fay jaar loolu lu mat bàyyi xel la yàlla nañ suñu borom mi nga xam ne nag mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ yàlla nañu dimbale ba li nga xam ne nii la bëgg ñu doxee ko ci àdduna ñu man ñu di ñuy doxee noona dimbale ñu itam ba li nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu di ko defee noona loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ñu ngi